bu bëree mu neex bu dongalee doo laajte anam bëri waaye Cheikh Niang nag ndaanaan la kenn laay njëkk a bàyyi mu nuyoo ci yéen ñaar ñu njëkk a nuyoo <laughs> caar kaya nuyoo bisimilah auzubillah ina wali yàlla gannaaw war nañu sant yàlla jur sud sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ maam coono borom daaru bu baax a baax di ko ñaan yàlla bàyyi ko bu baax a baax ba mu fekkee suñu njëriñ ñaanal mu tëdd mu jógee ñaanal sama yàlla bàyyi ko baax baax ba fekkee njëriñ di nuyu ñu ma àndal ñëpp ñu fi teew xam nga di gërëm waa Dalifort bu baax a baax a ah, nga bëri nga bëri weekend bi defe naa ne deux jours lañ ci teg nga jaar avance te avance bi nga jël dafa diis lan moo dugal Cheikh Niang. avance bi Cheikh Niang maa ngi fekk si kaw tur bi mu tegu ma mu toog ma tëgg ko maa ko dëkk ne ko may ma chance ñu bëre. nga ko tegoon sa yaram tàngoon wala. non du yaram mu tàng war naa mën a daan kuréel Cheikh Niang hmm. kuréel moom mun naa ko daan sax. bàyyi ma bàyyi ko ñëw Cheikh Niang nuyu naa waaw maa ngi lay fay sama mbokkum géwél. di wax maa ngi nuyu géwél gi yëpp di ziar ñëpp di sant Sénégal di ñaanal jàmm ñëpp di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi ñi na ci prison yi na ci hôpitaux yi ñëpp maa leen di ñaanal di ziar ñi fi teew ñëpp di leen ziar sama doom yaay sama xarit. mais booy bi keroog dafa bëree. daan fekk la ba ca kaw nga toog. ma toog sama soxna. ñu ñëw ci làmb ji mu fekk ma ca kaw ma toog sama soxna mu ne yow laa bëgg a daan jógal ma daan la maa mën. loolu la yëpp nit mënu koo weesu. yabeel weesuwut loolu. waaye booy bi dinaa ko dinaa xool moom lan la xool ci seex ñëng ba ñëw fekk ma ma toog sama soxna mu naan ma kaay ma daan la kii dama loolu loolu loolu loolu histoire làmb nit musuma ko cee def. kii moo ma def loolu fekk ma ma sañse ba rafet toog sama soxna ñu invité ko ci làmb mos nax production muy Ousseynou mu war a woy si mu fekk ma fa ma toog ne ma yow laa bëgg a daan lu doy waar la booy bi defa ah. oui te loolu nag dinaa xam fan la ko teg incha allahu rabi. dégg nga ko neen da nga koo fekk mu toog soxnaam nga ne ko jugal ma daan la te defe naa nag nit da nga koy boo fekkee soxnaam. ka nga xamante moom la gën a bëgg kii fu muy dem moom lay àndal nga ne ko jugal ma daal. xam nga la may am xam may problème bi. Mhm. ko wétil ak ak ku ku fu mu fanaan buntu bi du leen boole. loolu mhm. la demee nag maa ko fekk fu mu toog ne ko même message ñu bëri. loolu bu ñu demoon ba police dama koy waxaat. maa ko dëkk maa ko dëkk. maa ko dëkk tey ak suba. violation de domicile la bi def. sama porte dugg sama biir kër. kii jàppee wu ma ne fas yéene def faam booy ma ne arène la ma ah. fekk parce que damaa fekk ak ma femme. billaahi mu fekk ma ba ma toog mu fekk ma fa fël porte yi ñëw ne ma gannaaw jógal ma daal la yow laa soxla booy bi lu gannaaw la def nii. soxna si nan la réagir. ah mais dafa daf maa xool rek wéeru moom xam na ki ma àndal ne gaynde la ma ne ko non soxna si wéeru rek gannaawul. booy moom amul benn problème. mais booy nag dafa mel da nga xam fi ngay jaar ak ñoom. non booy xam nan ma bu baax moom damaa xamagul moo tax mu def noonu xëy na xamut lu ko ba wax ci sama kaw laaj ma Lion Raay xam na Lion Raay ay doomu baay la xam ay doomu ndey lan barki démb boo njaay ci mbuur xam nan ma. laa ilaaha illallaah ñii déggu li ma lax booy yi moom aw maak ñoom benn arrangement lu duma ndax loolu laa ak ñoom. dégg naa ko mu ne cinq six combats. bu Louga Louga fekk ñëpp ci juróom benn yooyu lay xanaa xam nga sama combat yi ma yi jël yëpp. bëriwuma ak ay wax waxkat. moo tax combat yi amul amul ampleur neexul. léegi kan mooy waxkat bi. kii non dafa naan kan mooy waxkat bi. kii damaa damaa mu jaaxu li laa ma li laa bëgg ci làmb yi na ko. géwél ku ko jël di nga doyalee wax. yow moom garaawut. wax moom bu ci sonn bu ci nopp du du koy wax nga bëgg. ne ko laa ko tey man kenn du ma rey ci rondal. Ah, ab géwél laa géwél wax lan ko xamee man damay wax. damay wax de ak jëf nag. ndax géwél yi heure bu nu waxee ñu ne géwél yi waxi géwél la ñuy waaye bu nu dikkee jëf-jëf yi géwél ñoo ay garmi lan de. léegi maa bëggoon di kaf wax ak yow waaye bis bu ñu tëjee porte yi nga xam ne géwél ga géwél rek ay ndaanaan te mooy jàmbaar. da ngaa ko jaay bés bi moom day jaay bés bi. li li li laa bëggoon moo tax mu jël Cheikh Niang bi ah. te di wax nañ ko gën a jaay nag mais bu jour ba ñëw rek lan sa perkaar si kàttanu yàlla yàlla baax na yàlla bu doon. déggu ma dama lay duma ba nga ne waali ma daan la déggoo ma de xanaa booy man kii kii daawul sama yaram sax kii ak kii kanamam gu bari deret gi kii xanaa gisoo kanamam gi. kii mës sa jël dara kii du dara yow tamit kii xamul xamul lu miti xamagu ko. man xool li yaxu bakkat bi dafa dem man ma dara baa ngi di gis nga ko bi ngi di dëñ na. man dara saaleetuma ko man gaana ko warasu la. <laughs> nag bu raamu nga nag yélee daw waaye dawoo leen. wallaay barki sëñ Tuubaa xamul nag li mu jël. xëy na nit ñee ko poussé mën ngaa jël seex ñaar ñun loolu mooy rey boo yu bari dañuy ñëw ne le diw màggat la demal nga jël ko jaare fa dem sa yoon nangam ak nangam amul ci lamb non moom lañ ñuy def ñu nangu màggat gi waaye bis bu ñu tëjee bunt yi ban na ci biir géew bi la nga xam ne kan mooy màggat ñun jëluñu dara seex ñaar naturel la ko seex ñaar musuñ laa duma te dina la duma waaw na ma dóor na ma dóor moo sonn mais naa ko daan rek dóoral ba muy bëgg a dee mais fu la jàppee mu jeex mais nee na mool nga waxoon nan ko de ñu la ëpp foofu gën laa doon fee bi la jàpp lam ji jeex ku ne mu jeex barki borom daaru ala fu ma la ne kër mu jeex wal comprendre lim wax su ma la jàppee mu jeex. sa loxo dafa amoon dóor ma daan yow sa loxo yi dafa. dafa ma trois kii. te yow yaay doon onzième personne. kenn mu daal dama lay dóor nga sedd gu ma jéggi la. mais nag kii buy ñëw boo ñaaw koy andi. loolu moo dama bëgg ah, damay ba dem samay làmb ñoom Ousseynou ñi xam nan man ay booy ñaa kenn mosuma ji woon na topp. Mhm. booy ñëw ñu dem ma duma la te damay fekki ay dem nga làmb sax borom jakarta doo nga àndal damay dem seen biir dëkk fekk ay nit taxaw ma jàpp leen duma leen daan leen ut ay jakarta dem ba ngin ay taay ngin gi neew leen daan leen ñibbisi kii nee naa la man kii dawul sama yaram. léegi combat bi boo naree ñëw boo ñaa nar laa andi. boo ñaa day ñëw incha allah parce que sama rakk la nag. ñoo bokk benn deret. kooku su ñëw day ñëw nekk ci sama wet. Bombardier sama mag day ñëw ci sama wet. parce que ñoom ku ci am sa bis maay maay ñëw ba ci sa taxaw ca lépp lu ma ci mën ma di ko def kon ñoom bis bii xamul sax li mu tëgg. incha allahu rabi du ay booy ñaay tax may bëre. parce que man du damaa xool booy ñaa moo moo tax damaa war ndax booy ñaa magam laa maa ko jiitu ci laam. li ma bëre bëreegul kaar ba. kon man ñooñu xoolu ma ne dan maa indi rek damaa war a ba déedéet kii moo am bisu boppam xam nga kuy dàng ni du bëri ji moom donc resut kenn ba may ñëw man doo nga ànd moom ab estafam la indi gis nga gars yi maa ngi dégg ku ne lu nekk li muy expliqué waaye baax na ba bis ba. muy nawee ñëw Bombardier topp ci ginnaawam Boy Niang topp ci ginnaawam moo lay jëflanteeg yow lan la lay def. xam nga ma li ma koy wax xam nga tey dafa ne tey boobu ba may ñëw maag sama estaf maag sama estaf ñoo ànd. Mhm. làmba jaa moom na fexe indi benn nit sax. non boo ñëwaat buy ñëw waa Thiès dañuy jóg. promoteur bi daf ñoo fay xaalis lii lii rek li ma indi fii rek jaay na làmb ji te demaguñ fenn comprendre nga li mu la wax fexe la indi ñaar même bu dee benn ka na kaara sax nga indi ko. waxtaan dong ak màggat gi tax nga indi ñaari oto ak ay paak ku ne taxaw di xam. màggat duma ko daan ko. màggat bi du mu màgget bi du ma ñëw di la jox te naa la ay dama dama leer lemal de naa la naa la jox cër ma gis nii naa la jox cër barki Seydina Mohamed naa la jox cër de cër mais bu foo taxaw ma fekk la foofu ko te bis boo ko defee dama lay jéggi dem barki maam Cheikh Ibrahima Fall soo arbitre sifflé na nga def loolu nag xam nga jour bu waxoon naa ko fi sax sunu combat jeex na maa ngi koy jégglu ne woon naa ko daf ne moon foo ne ma fekk la fa ma ne ngir yàlla na nga def ba loolu yow nag yaa ngi wax fii bu at bi suufloo na nga fexe ba màggat gi fu mu ne demal fekki ko fa. ñu ñii ñii ñii ay mbëru alal lañ ñu dañoo compétir ñu dañoo compétir ak ba sonn. àll bi am am nañ ci lu ne. ñun mosuñoo xanaa déggalum laax. yow doom ndegam yaa am ci àll bi dara man mi ci bëree 700 combat nag. non combat nga bëri ah, bëri mbapat ba tas. ay nees yëpp daan naa leen mbapat. parce que Seydina nees mi benn mii booy man tas naa réew mi de dama lay wax xoolal wërsëg a fi nekk. Eh. moom mi sax day daanu daanu daan daan daan daan. d'accord naa ci loolu mais dama ne la man xëy na ku nekk ak lii sa sens ngay jot ci làmb mais ndaanaanul bërikat ngay waxal te gaynde ngay waxal ku dul maye benn paa. ci ginnaaw non dama xale boo xam ne li jëntewul mag benn at. xanaa déggoonum la mag xoolal déggoon xale yi fi jaar yëpp dama leen a wàcc. pour wax la ko man xale yi fi jaar yëpp dama leen a te yow da ngay dëppaat. Cheikh Niang am nga combat laa la wax. gis ngeen mbokk yi loolu la loolu la Ouzin andi tey. Euh, Ousseynou andi. boo amoon kàddu yu mujj looy wax. waaw li may wax daal mooy comme li ma doon mujjee wax rek. di wax ñëpp ñun mobiliser wu waa Thiès ñëw jàpp ci combat bi ak waa Diourbel di woo Habib Niang Habib Niang toujours fu ma toll dama koy woo parce que xam naa ni mu demee Thiès ak ni mu mel ci mbëri ak ni mu mel ci ñun ak ni mu ñuy jàppale. nee naa la combat booy jaxaaw 16 talons la jënd kon combat Cheikh Niang xam naa ne dina jënd 20 talons ndax xam naa ko xam naa li ñuy dund xam naa ko xam naa mooy kan ci Thiès ak ni muy dimbalee waa Thiès moom képp nag laa woo Thiès ku ñëwut baax na man daal Habib Niang laa woo jeex na. point Habib Niang Habib Niang. point woowatu ma keneen ñi ci des sama yoon newut ci ñoom. <laughs> tàggatoo. waaw man damay woote rek di woo waa waa amul ma di woowaat Mamour bu baax a baax di woo Maam Diarra di woo waa Dalifor yëpp xam nga di sant Siteu bu baax a baax di sant Ala Diouf Assane Ndiaye di sant Amath Diop xam nga Kese di woo waa diaspora bi sama mag koso maa ngi koy baax a baax laa ma jëlal ma ay borog yu bari xam nga di baax a baax nag. parce que tey sànq dañoo wax benn nouvelle bu neex Kaaw Cissé génn na ama di ko wax Dalifort ñaan ni egsi bu baax baax a baax ama di ko ñaanal nag moom mu nekk si jàmm bu baax a baax di ko ñaan mu defaat retour bu garaaw ci làmb incha allah gis ngeen mbokk yi tey li moo fi amoon di leen jox di dajee beneen yoon jaa ngeen jëf